yaa rabbanaa bi suurati almaauni wajjih li xayri darara almaluuni yaa rabbanaa habli bi xaqi alkawsari yumna alxayaati wa ujuuri kasiri taala wa barakaatuhu ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santal Sëriñ Tuubaa ñu ngi nuyu bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yëpp ci turu Sëriñ Xamsatu moom Sëriñ Suhaybu jataay bi di ko waral mooy ndigal li nga xamee ne Cheikh Mouhamadou Mountakha da ko joxe mu njàngum xasida ak alquran te jaar ci Cheikh Basir moom Cheikh Abdoul Khadir ak sëñ Xabaan moom Cheikh Mouhamed Khadir ak si ci mboolem taalibe yépp sëñ Hamzatu di ci soññee ci taalibe yëpp rawatina ñi nga xamee ne ñooy yëngu ci xasida yi ak nuñ ci mën a yëngoo ak fuñ mën a nekk di woo ñëpp ci ndigal loolu ngir bëgg ñu defe ko ni ko sëriñ bi digle xam naa sëriñ Aliou Diop dana dikk leeral niñ ko war a defee asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe murid yi waa ahlu xasaayit ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare te di leen ndokkeel ci bis bu màgg bu tedd bi ñu bàyyi waaye di amaan mbégte ci ndigal li nga xam ne bàyyi ko ci Cheikhul Khadim muy sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadul Muntaxa jaar ci jëwriñam Cheikh Ahmadul Bachir moom Cheikh Abdul Xaadir wàcc fi ci àllu xasaayit ci sëriñ Amsatu Mbakke bi mu jaaree ci sëriñ Xaban Mbakke moom sëriñ Fàllilu mu mel ne sëriñ Muntaxa daa dégg sëriñ bi ndax sëriñ Saliou mos na maa wax ne ma sëriñ bi de buñ ko doon mis misaal ak buum lañ koy misaale ne ma ak buum nag day baaxoo ñaari cat ne ma lenn cat li mooy alxuraan cat li ci des mooy xasaayid yi ku ci téye ci lenn cat téye nga ci buum gi waaye ku leen boole nag yaa téye dëgg-dëgg buum gi sëriñ Muntaxa nag da leen a boole moo tax fu mu yëkkatee liggéeyub alxuraan yëkkati ca wet ga liggéeyub xasaayid yi Euh, liggéeyub xasaay yi nag sëriñ bi moo ci jiital sëriñ Amsatu Mbàkke mu ànd koog mboolem ahlu xasaay it gépp euh, sëriñ bi mu ngi soññee ci ndigalal sëriñ bi bëgg murit yëpp waajal ko te fonk ko te jox ko yitte ndax sëriñ bi yàgg naa digle njàngum alxuraan ak njangum xasaayit waaye nii ma ko santaane ak nii ma ko tërale mu ngi soog a am ci sëriñ bi moom xam na li xew kon li nu war mooy li sëriñ bi digle rek ñu def ko maanaam jañ ak ñoddi moom nañ ko bàyyi ci loxoom moom sëriñ bi eh, amti kon luñ ciy fas mooy li sëriñ Moustapha wax rek mooy ñaanal ko moom sëriñ bi mu gën a wér te gën a mucc te gën fee yàgg la ca des lépp dañ ko koy delloo moom mu tànnal ñu suñu borom ndax lu mu tànnal moo gën ci ñun sëriñ Amsatu nee na mboolem daara yi ak daayira yi ak kuréel yi ak fu ñu mën a nekk ci goxe adduna yi mu ngi leen di jot li ndigalal sëriñ tubaa muy ndigalal jàng xasaayiti sëriñ tubaa yi njàngum xasaayit bi nag ni ko sëriñ bi bëggee gi yoon mooy kuréel gu ci ne fa nga ne nga defe ko foofee kuréel gu ci ne itam sëriñ bi dalaa delloowaat mbir mi ci sa bopp ngeen xool yéen ni ngeen ko mane ngeen waxtaan ci ba jubo seet waxtu wu wér boo xam ne dinañ ko tàmbali dibéer jii di ñëw hmm. waxtu woo bu jotee ñu daje fa jàng njàngum durus jàng njàngum yëkkati hmm. benn waxtu baa ñaari waxtu baa ñett luñ ca juboo ñu def ko ñaan dem bu subaa ñu daje waat ci waxtu woowee defaat la ñu defoon di ko toftale noonu yi di ko toftale noonu ba dibéer jëkk hmm. ñu matal ko ca dibéer ja bu altine ñu bokk déglu sëriñ bi moom Cheikh mun Muntaxa mu tëj liggéey bi sëriñ Amsatu nee na noonu la ko bëggee ñenn ñu ci nekk daa dale na waat ñu waajal ko seen bopp waaye li mu bëgg mooy waxtu wu ñu sartoo ba jàpp ko nañ xam ne waxtu woowee moom lañ jox sëñ Tuubaa waxtu woo jotee lépp lu luñ jàppoon nañ ko bàyyi daje fañ waxoon defe ko nañ ko waxe woon ñaan dellu bu subaa ñu dajewaat defar ko noonu loolu la sëriñ bi bëgg nun ñëpp lu bokk ci maase defe ko noonu yi liggéey bi nag ñu fonk ko lool waajal ko lool yëg ko lool jox ko yitte ju kawe ndax ni ma ko waxee léegi rek sëriñ Muntaxa moom làmbatuwut waxal na boppam ne sëriñ Tuubaa am naa ci taw feex ku am tawféex nag ci nekk ci gannaaw kilifa gu mel noonu war ngaa fonk ndigalam ca di ko fuglu kon ndigal laa noonu sëriñ ba nga koy soññee bëgg bu dibéeree ñëpp tàmbali ko te saxal ko dibéer le 17 waaw ba dibéer ja dellu siwaat ci altine ja nag ci la ko sëriñ bi tëj kon day mel ne dibéer jii ñu jëm rek ci la liggéey bi tàmbali hmm. na ko ñëpp waajal ñu soobu ci ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin teg ko ci loxol cheikh mamadul muntaxa mu teg ko ci loxol sëriñ Tuubaa mu defal ñu liñ bëgg waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu غيبك يا من قاد لي خير حياة شكرتني عند جميع جندك يا خير جار قد مكثت عندك subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala al mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin